gannaaw ba mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi niki àllarba ji maître El Hadji Diouf daal dina kon bu baax a baax jëm ci lu mu dégg lu ñeel wàllum loi amnesty te ñu jàpp ne bu amee Ousmane Sonko dina génn kaso bi ci bi muy tijji nag moom maître El Hadji Diouf nee na Ousmane Sonko ab criminel la ab magu yër la teg ci itam dafa nekk koo xam ne saaga na mboolem kilifa diine yi nekk ci Sénégal teg ci itam dictateur la ba pare dafa nekk koo xam ne dafa noppoon ngir tas nguuruk Sénégal mu ne kooke jàpp na ne kon wàllum amnesty jekkul ci moom ndax bés buñu ko defee rek juroom fukki doomu adama yi nga xamné ñak nañ seen bakkan jaaré ko ci manifestation yi fi jotta am loolu yépp day muju nax té da fay nekk lo xamné kon daanaka day salfaañal li nga xamné ne di liggéey bi magistrat yi amal jëmele ko ci kaw ki di Ousmane Sonko ci jamono xamné xam ne maître El Hadji Diouf mu ngi déllu di xamal Macky Sall né nonu ku demb bu bëggé nekk xaritu tay jafe-jafe amna ci mom président Macky Sall ci bopam mo ne won Pierre bi Atepa escroc la kon xel warta mëna a nangu tey Pierre bi Atepa momé Macky Sall ne woon escroc la bëgg a doon ki nga xam ne mooy dox tànk jàmm diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall waral moom maître El mu dellu di laajte ne ana Pierre Goudiaby Atepa ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñooy sàkku di dox tànk jàmm ngir Ousmane Sonko génn kaso bi fu ñu nekkoon jamono ji mu doon woote fitna ci réewum Sénégal ci jamono jo hamne ne maître El Diouf nee na Ousmane Sonko mu ngi doon won ndaw ñi ngir ñu attaqué bâtiment public yi li nga xam modi moo askan wi teg ci itam nañu fabriqué li nga di ay cocktail molotov ngir mën a daal di saccagé li nga xam ne moom di magasin yi lu ci mel ni Auchan ak yeneen infrastructure yi nga xam ne état bu Sénégal moo tabax ngir askan wi maître El Diouf ne nag lii lépp nga xam di Ousmane Sonko def ko ci réewum Sénégal moom xolam ak xelam mënu koo may benn yoon muy nangu ngir ñuy wax lu jëm ci wàllum amnistie jëmale ko ci jëmmam joojee nga xam ne daanaka fu réewum Sénégal egg tey ci fitna moom usman Sonko moo ko waral